Bienvenue sur Salam Vision. ci yàlla dolli noo ay maqaama bismil ilaahi ci barkeb sayxi fàddilu mi ay maqaam yàllaw bisimil ilaay ci barkeb say ci faddilu mi boru yàlla doon dino ay maqaam yàllaw jërëjëf Cheikh Moustapha ci leeral bu am solo boobu macha allah rabbi su ko defee rek xanaa ma bëgg ñu ñëw fi nga xamante ni daanele nga fa sànk ci wàllu soxna yi mm-hmm. Cheikh Moustapha mm-hmm. jigéen bu nekk ci néegu <coughs> di aaye boppam boroom këram mm-hmm. ban conséquence moo ko ci mën a fekk ak ki nga xamante ni tamit wax dëgg yàlla maanaam mi ngi làmb poosu jëkkëram bu jëkkëram wanee ginnaaw wala muy dallu wala muy sangu mhm. lan moo ko ci mën a fekk benn baaxu ci yëpp yëpp xoson la <laughs> mi ngi mel ni rek nga ni titre foncé bàyyi mhm. <laughs> wala bàyyi ñu titre foncé mhm. sëriñ bi jigéen booy làmb sa poos boroom kër bis boo nee sa doom dafa dan ni dafa jël mhm. sa xel dana sori mhm. te nga na nga gëm ni jàngoro ji yàq ko wàll yàq ko wàll benn amul barke mhm. waaye foofu it na am na sew-sew bu fa am boo xam ni na ko góor ñi bàyyi xel mooy yor million te néegoo jox sa soxna mille francs mille francs ba mu jaay ngorom ngir jël sa alal hmm. ñaari àtte la yàllay teg ndaw si li mu def waru ko waaye yawit li nga def waru la ci gàttal rek hmm. kooku nag doy na sëkk ci wàcc hmm. waaye da ca dul yam sa bopp sa borom kër dana indi doom juy daw ba dee te du am dara tere sa bopp sa boroom kër dana indi doom ju jigéen fu mu sëy mën a tas tere sa bopp sa boroom kër mën na indi sëriñ bi doo am xol bu sedd ci sa njaboot tere sa bopp sa borom kër mën na indi fitna joo xam ni ndax yàlla wax wax yàlla du neen xam nga yàlla mi ni boo génnee sa kër te sa boroom kër tàggoo la rek tàggoo tàggoo woo ko bopp tàgguwoo woo ko rek malaayka yi ñu ngi lay rëbb même bu doon sa waajur moo feebar mi la jur mu ni la toogal toogal te xam ni toog jooju nga dégg te déglu ko mën na tax sa waajur woow bu faatu woon dem aljana <laughs> ndax dégg ndigal yonent bi salaay sallam moo ni su ma amoon lu may digal jigéen juy sëy laa koy digal te <laughs> may na fonk boroom këram <laughs> kon lan moo ne foofu mhm. te dafa doy waar sëriñ bi moo tax tere sa bopp sa boroom kër fitna yu bare da ci ne ay conséquences yu dul jeex da ci ne mhm. moo tax góor gi sax bu loolu amee moo xam dafa forse ndaw si moo xam dafa nàngam moo xam dafa nàngam bul yaakaar yow ndaw si sax même jëloon nga góor gi ni dala forcé nga yóbbu ko ci yoon taxul coow la jeex day ragolaat day rogalaat day rogalaat rogalaat la nga defoon noonu mën nay indi fitna di doon sa naqaru àdduna ndax doom ju ci juddoo xamoo doom ji lu muy doomee mm-hmm. <laughs> moo tax mu garaaw nag moo tax nag mu garaaw sëriñ bi yàlla santaanewu ko yonent bi santaanewu ko te éeréel yu dul jeex a ngi ci <laughs> la ko waral nag lanu war a xool lan mooy cause bi <laughs> lan moo xew waa ji dafa seexlu ndaw seem waa ji daa wóolootul ndaw seem walla walla ndaw si dafa am leneen lu ni ci biir lu nit xamut lan moo xew ba mhm. tere gi mën a am mhm. walla ndaw si dafa bëggul waa ji mhm. <laughs> dafa bëri ay waaw kay ndax mbir nag su taab amee rek balaa muy doon taab picc la <laughs> bu dépassé picc la nu ni taab la mbaa ñu ni putantaan door toj ak du toj bu tojee la lépp dana génnam déet fa la wax ja di nag waaye yëpp erreur mhm, circonstance waaw yëpp erreur la nag ndaxte ween moo foor mhm. moo waral bàyyi man na dooñ ne kii dañu koy tooñ walla nàngam ci waxin mhm. waaye yaay eh, waaye taxul ba mu wàll ko doom waaye bu dee ween la nag moom ci doom da koy wuti si si saa si moo tax mu doy waa sëriñ bi benn baaxu ci benn nag baaxu ci waaye sàcce sa poosu jëkkër moom bu la jëkkër ju joxee gënut bu la joxul gënut nit nag léeg-léeg dana jëfit loo xam ne bàkkaar du ko ca fekk ndax yàlla xam na intention ak destination <laughs> surtout loolu waaye mën na ñàkk na mhm. ndax da nga xam li ngay def lan lay jur lan lay jur ëllëg waaw ah, surtout loolu loolu dafa doy waar trop macha allah ah. mu doon lu am solo macha allah rabbi mais itam sëñ Moustapha bala may dugg ci deuxième question bi mais itam góor bi nga xamante ni mënta satisfaire soxnaam mhm. ci kaw lal mhm. kooku tam yaa yaa problème képp koo xam ni yaa ngi jëfandikoo karatay ni karatay ni laa wax karatay ni mel ndaw si moo naan la dimbali ma wàcce ma te yàlla tax <laughs> ndeysaan <laughs> ci gàttal ci <laughs> ah. te kuy jëfandikoo karatay ni doo jàmbat ndigg waxatuma la karatay ni gu ànd ak karité day am <laughs> am na ñoo xam ni ay chauffeur la. Mm. waaye seeni i bët neexu. sama classe mënu <laughs> day am am na ñoo xam ni seen oto. vingt nangam cheveux comme ni ngeen koy waxee am na ñoo xam seeni cheveux moo daw <laughs> am na ñoo xam ne nag <laughs> village si bopp moom la ñu demut <laughs> dañoo rek vidé jootam waaw dafay am général waaw dafay xam nga ni góor ñi dañuy caaxaane lu bare mm-hmm. li ngay génnee dafa war di du gaat mm-hmm. ah, waaw ñun nag dañ ko dul def sëriñ bi Ah mooy entretien bi waaw waaw loolu nag léegi nag oto so so so demul vidange. Hmm. moteur ba kuute lii ba yàqu na. Hmm. lii ba yàqu na hmm. lii ba yàqu na. jabar ji di mer coow li bare góor gi di énervé wu. ndax li koy énervé mooy tey. bu sax génnoon ndaw si wax ak nit ba yàlla buy góor. dootul am jàmm. day yaakaar ni li mu nekk la ndaw si xeet. te fekkati yow waxul ak sax moom nag sax dëgg la moo tax sëriñ bi. am na. <laughs> waaw góor am na am na. Mm-hmm. am na na gaañi di wut vidange bu jaar yoon. <laughs> di vidéo waaye du vidéo daal mm-hmm. surtout loolu la. parce que dafa bëri ay conséquences yu ci am tey jii dañu gis jigéen ñoo xam dañu ne ci néegu sëy ba pare ëlbati ko am far woo xam ne ca wet ga di dem. waaw di fa def naka su dul noonu. waaw loolu loolu erreur la. Mm-hmm. bu rëy sax. erreur bu rëy rëy la moom mhm. foofu foofu moom erreur bu rëy rëy da cee am mhm. moo tax ñaari mbir rekk moo koy waral lan moo war a tax ba loola di am mhm. soit waa ji dafa feebar ak naa ni comprimé it bu la dara dalul ci ngóoro waroo ko def surtout te bu sa ngóora normalatul del moytu diw gu bare <laughs> bu sa ngóor a del gën a bëgg sport bu sa ngóor a normalatul del moytu suukar ndax suukar day not ngóor ak yeneen sëriñ bi waaw léegi nag yooyee éeréel la am na ñoo xam ni yéegunu sax bay wàcc fa <laughs> xam day am mm-hmm. am na ñoo xam ni mm-hmm. laal nga leen sa loxo sax mooy yegg nañu. am na nu baal ma si wax ji nag. ci jàngale la rek ak ci orma. xam nga li tax ma indi question bi dafa am ndaw soo xam ne da ko wax. nee na moom borom këram bi mu ko takkee ba tey jii. Mhm. benn benn bu mat sax mënu ko am ci mënu ko am te bu ko amee tam te moom benn boobu sax doyul satisfaire ko. góor ñi la gën a metti am na góor ñoo xam ne nag amuñu problème mu expliqué ko. am na góor ñoo xam ni danoo am problème mu expliqué ko ndax danoo xaw a rëye loolu. te jàngoro moom boo ko wax du saafara. ah déet sëriñ bi waaye góor a kay mënul weesu nag sëriñ bi boo nee tik mu ni tak boo nee tak mu ni tak waaye boo nee nag foo ñóoral te wax dëgg yàlla la nga yor doxut. moo takk montar <laughs> mu doxu la ya <laughs> ku la laaj heure foo koy joxe. xaw ma ko de. ah loolay mbir mi wallaay ndeysaan pourtant buñ doon waxante dëgg. Mhm. di génnee jàngoro yi ci sutura nag. surtout mhm. ci sutura nag. Mhm. waaw lan moo gën a garaaw góor gu mënul am benn bu dëgër ci benn soxna nga naan da ngay ñaareel. <laughs> kooku de boppam nag fi ñu ko. waaw la pourtant am na ñu koy def am na ñu koy def. te erreur la moo sëriñ bi am na détails yu bari yu ci am. Mhm. moo tax mani la am na saafara nag. Mhm. même jigéen gi bu dee góor gi nangul faju mhm. moom bu jugee am na ay solution ñam yoo xam ne am na loo xam ni boo ko ci defee amul nag benn lor amu ci. amul benn conséquence mhm. amul lenn loo xam ni danga nga naan fitna la wala musiba la mhm. sa boroom kër bu koy utiliser kàttanam da koy yëg ok nag wax dëgg yàlla ni mhm. amago quarante ans amagoo cinquante ans dara doxatul loolu erreur la am na ñoo xam ni vidance la am na ñoo xam ni rab la am na ñoo xam ni def def la xala xala léeg-léeg nit ñu takk ko xale koo xam ni même bu tekki ko mhm. dana fa bàyyi dara. oto bi dootul na mu war a dawee dootu ko dawee. Mhm. day may segment yu yàqu. waaw non waaw yooyu nag bu amee nit ki fokk pourtant jaaduwul sax. waaw jaaduwul ku yàlla bind am na nu mu mhm. kon su fa newul rek am na lu am na lu xew mhm. macha mhm. mu doon lu am solo loo xam ne tam góor ñi dañoo war a jóg ci bàyyi bàyyi bàyyi rëy moom fi mu toll nii boo ko wili pandewul sax du saafara wax dëgg yàlla te am na saafara sax nag te saafara voilà mais fi ne fi boo toogee ëmb sa jàngoro jàpp sa njàmm ne doo ko wax kenn kon fi ne bëggoo mu saafarawu yàlla xam na ni seextaalu góor mën na am fanweeri minute fanweeri minute ba une heure de temps wallaay ndeysaan <laughs> torkal la loolu moom des na ci des na ko wutal jotaayu boppam spécial ndax yàlla xam <laughs> am na ci ñoo xam ne moom itteewoon nañ euh, hmm. itteewoon nañ ci waxtaan ci te hmm. xam naa ne bés buñ ci defee jotaay spécial tënk ko ci wàllu ngóor ak yi mu àndal a ah, xam nga réew mi léeg-léeg da ngay bëgg sax di laaye biir hmm. waaye après conséquence aada noo aada non sax aada yi aada jënu tënk ci réew mi mhm. day waral yu bare mhm. léeg-léeg ni nga koy bëgg waxtaane doo ko man ndax nit ñi miinunu ba léegi waxtaan ci seen biir sa bopp buy metti da nga naan day metti mhm. sa tànk buy metti naa day metti waaye leneen dana la metti nga toog ay fan mënoo ko expliquer mënoo ko wax <laughs> loolu rek dafa yéeme <laughs> waaw xam nga loolu rek dafa yéeme te pourtant bu nu ci doon bàyyante xel mhm. di ci waxtaanante ci lu ci baree bare te mhm. seetaala léeg-léeg nit stress jàppala ba sa ngóor a dem waaw léeg-léeg it jigéen stress jàppala ba yëgutoo bànneex mhm. moo tax bu nu naan góor rekk mooy yoom loolu du dëgg de góor day yoom jigéen day yoom bu baax sax sëñ Moussa dafa mel ni fi mu ne question bi waroon na ñëw topp ci bii yow moom nga ma tontu nii fa ah, day am parce que dafa am koo xam ne moom dafa laaj nee na moom fi ko jaaxal mu bëggoon xam mooy góor boo xam ne ndoxam dafay manqué ba wala mu oyof ba du mën a am doom ah. ak ki nga xamante ne mooy jigéen boo xamante ne moom du yëg bànneex ci biir néegu sëyam mhm. waa xam nga tey góor goo xam ni ndoxam day manqué ndoxum siti dana ko def bu baax sax mooy ndox mi dana ñëw mhm. waaye day ndox mi day ñëw waaye dafa dul doy fekk walax njaan yi moom matut mhm. dafa manqué bu baax a baax a baax a baax mhm. fekk ndoxum siti mu mu metti dana ko def ndoxum siti mu metti dana waral sax boo séyeg ndaw si ba pare li nga séyeg moom génnaat <laughs> jigéen dana ñàkk ma yëg bànneex waaye nee naa la banaana day rempli loolu ok waaw lekk banaana rek day waaw am na sax yu muy àndali bagage day remplir lool bu dee doo yëg. Mhm. mën nga yëg bu baax. même góor ah. Mhm. même góor loola même bu amee mën na amuk saafara waaye ndox bu woyof sax ak tële ba léegi du benn. bokkuñu am na ñoo xam ni. seen kartan baax na. Mhm. ay seen ndox baaxut. ak nuñ def ki nga xam ne dafay gaaw a yëg boppam. <coughs> waa ki gaaw a boppam kooku moom ñaar la dana dal góor dana dal jigéen la. <laughs> bu dalee jigéen gi góor gi dana am jafe-jafe bu dee day yeex ci moom ndax am na ku ñoo xam ne bu nu xasee yéeg seen bopp bëggatuñ ci dara. xam nga foofu dañu jawr éereel nag. Ah. am góor joo xam ni it bu nu xasee ba wàcc wan nan la gannaaw. cig baadoo la. Hmm. nu baal ma ci wax ji nag waaye damay hmm. dañuy waxtaan. dañuy hmm. waxtaan baadoo gi mooy li soxna si war a am euh, tubaarkàlla des na. <laughs> des na sëy kese yëddu la jigéen di yëge bànneex surtout loolu jigéen nit du góor it du sëy kese it rek la yëge bànneex dëgg dëgg neex yàlla nag yooyu nag yépp pourtant ci jàngale dañ la koy wax dañ naan la sañoo ñëw rek seq ak jigéen yaa ngi koy gaañ yaa ngi koy lor da koy gaañ waaw war a ñëw naxante mhm. ngeen yëgante mhm. sentirante. <laughs> moom la tubaab bi tu dee préliminaire. aw ah pourtant. téere yi dañ koy jàngale. <laughs> kon dërëy lislaam mettiwut. dërëy diine mettiwut. sëriñ bi yooyu nag buñ ko doon def xam nga dem bay sëy ak sa soxna di fas sa kanam. <laughs> baa soxna si di sëy ak yow ngay fas sa kanam yooyu yëpp ay erreur la bu naree am bañoon mu am sax moo gënoon ba jàmm am ndax loolee leneen lay def mhm. te yooye dana manqueel cofeel mhm. dana manqueel yëg-yëg dana manqueel lu baree bare seetaa la mhm. waaye yooya na am saafara waaye lu ne ak fa nga koy waxtaane surtout macha allah dëgg yàlla am na solo loolu Cheikh Moustapha te loolu moom faaw ñu jàpp ci jotaay boo xam ne faaw ñu tënk ko nga faram fàcce ko leeral li ci nekk lépp ndax su ko defee tam góor ñi nga xam ne xëy ak rëy da a jàpp wala mm. kersa gu bëri jàpp leen ba mënuñu koo wax mm. danañ am bunt boo xam dinañ ko waxtaane si ak yow wala mm. waxtaan see ak ci yenn commentaire yi nga xam ne ñoo ŋànk liggéey bi di ko def mm-hmm. itam ay muskar laf lañ mm-hmm. am na ci loo xam duñ ko def ba pare di ko di ko waxtaan duñ ko def xalaat duñ ko waat ak yàlla mm-hmm. mu doon lu am solo mm-hmm. bokk na ci Cheikh Moustapha li nga xamante ni mooy euh, euh, saafara mm-hmm. tey jii bëri na ñoo xam ne ñi ngi tuumaal sëriñ ci dem sëriñ bi jox lay saafara wala jox lay ñaan nga dem sangoo ko toog ne suma dara mais jàpp naa ne saafara dafa am nees ko war a sangoo ak fees ko war a sangoo bëggoon nga indil ñu ci ay leeral tuuti lii dal sëriñ sax mi ngi dal docteur surtout docteur dana la bindal ordonnance. Mhm. nga naan doo gis benn tan mhm. waaye li koy waral lenn rek la sëriñ bi. Mhm. nit fajut. yàllaay faj. yàllaay faj. nit ñaanut. yàllaay ñaan. yow mi ñaanlu sa xol rafetut. boo ñëwee ci sëriñ bi doo wax dëgg. <laughs> ñaar. ñetteel bi si tegu yit lam la jox yaa ngi naan ma iseewaat mm-hmm. te ñaan kenn du ko isee benn mm-hmm. yooyu dana indi ay jafe-jafe mm-hmm. xam nga te sëriñ bi ñaan li ko gën a mën a yàq ñàkk ba ñu wax dëgg bokk na ci am na ci nag am na ci am na ñoo xam ni dañuy laaxatu bay fen nu baal ma ci wax dañuy làqatu bay fen duñu wax dëgg am na ci. loo ci wax xam xam nga ci dara. am na ci. man léeg-léeg damay muñ di ree rek. xam li nga xam rek. <laughs> waaw damay muñ di ree rek. ndax dama xam ni doy na waar daal. te dara jaru ko waaye nag da ngay bàyyi noonu. ñaareel bi si tegu sa sëriñ bi ñaan gu mënul jàpp amul ku ñaan yàlla ñaan nga nangu na. nan la nangoo fan la nangoo ban anam lay nangu ak wan waxtu lay nangu. surtout. ñaan am na. ndax man sëñ bi man ñaat laa gëm man man li coow li bare bare man gëw ma dara ci àdduna billaahi wallaahi ñaan rek laa gëm wallaahi wax nga dëgg <laughs> ñaan kese laa gëm léegi nag ki jëfandikoo saafara xam nga est-ce que xam nga rab day yaaxum saafara do xam nga ko mhm. rab da teg sa saafara nii bàyyi woo xel saafara mu ñëw soppi saafara baa fi saafara si amee doole mu lay sikki sàkkaloo nga naan lii fii laa ko tegoon jëndoon naa sondeel bi jëndoon naa zamzam bi jëndoon naa lii di ko nikke nàkk ndekete yow wàññi na dooley saafara si bu yàgg ba nga naan feeg geesuma nàngam duma sangu fa doo doo mu mujjee ci sangu faf moo tax sëriñ dëgg day ñaanal ñaankat dëgg te ñaankat dëgg mu ñaankat ka dëgg mooy ki ki nga xam ni dafa gëm ñaan kooku la ñaan di jàpp <laughs> koo gis ci kaw da nga naan moom day dafa ñeme sëriñ pourtant <laughs> dafa gëm ñaan rek mm-hmm. ndax ñaan boo ko gëmee mu gëm la wax ji lépp lool la boo ko gëmul mooy moo ci la rek non bul soxla ah, <laughs> sëriñ boo gëmee mu gëm la mm-hmm. léegi nag yooyu day am léegi nag saafara am na mm-hmm. am na saafara yoo xam ni ñaan la am na saafara yoo xam nag ndox kese la ndax bu dee sëñ bi nu baal ma ci wax ji du wax dëgg kiy ñaan lu du wax dëgg mm. ñaan gi ndox ki dana yeex nangu <laughs> yàlla bu ca teg sax kay bind du wax dëkk allahu akbar <laughs> ci yàlla <laughs> moo tax yooyu sëriñ bi mm. am na solo ci laaj mm-hmm. waaye ñaan mën na bañ sax nangu sëriñ bi nga dem ci yaasin nangul ñaan gi waaw am na catal bi loo ciy bind lu jikko ñaaw ñaaw hmm. ñaan gi day nangu lu jikko ñaaw ñaaw laa la wax ñaan gi day nangu si <laughs> na <laughs> ah, am na. loolu yi nangul ñaan pourtant. <laughs> waaw te mi ngi ci yaasin waxul Alioune Hakim. waaw moo tax nag li nga laaj am na solo. Mm-hmm, ndax sangu gi metti na. Mm-hmm. tey nag xéewal yi di néew a génn. waaw ay dara waralu ko am na koo xam ne day ñëw ci seen waaye ba muy génnaat mi ngi xalaat nan lay def ba bu jekkoo mama war war ak naan la gisuma ak bëgg yor téeméeri sëriñ nag te bëri sëriñ. bare docteur bare conseiller <laughs> bare sëriñ dëkkee jaaxle mhm. bare docteur gaaw a dee bare conseiller gaaw a dof lépp moom bu bëggee daje ci benn bopp rek fi mu ne daanaka moom. moo tax sëriñ bi dootul doon jàmm moom. am na ñu yàlla may yàlla wax ne duma def fenn dara ba pare di ko dindi. Mhm. wax yàlla la. te wax yàlla jooju wax la ju wér. Mhm. te billaahi noonu la demee am na ñu yàlla may la dul jeex loo xam ni dañ fii ne ba jóge fi ñoom. Mhm. wallaahi du yëngatu sax. waaye kan lañu koy jox. Mhm. <laughs> surtout. am na solo lool am na solo lool si Moussa mm. parce que loolu foofu loolu moom fi ne li ñu ci indi ay leer a fi ne dafa doy waar fi mu parce que li ñu tuumaal tey jii sëriñ si sax dafa bëri mm-hmm. te mooy li nga wax sëriñ bi nga xam ne fi ne na ma yàlla baal waxul dëgg mm-hmm. ki koy bindal du wax dëgg mm-hmm. ka ñëw di wut lu si ci moom itam waxu ko dëgg kon defe naa ne foofu moom dëgg du fa mën a am njëriñ du fa a am macha allah day am <laughs> non moom am na koo xam ni bu la naree fay dafay da koy jaral mu bañ génnee sa xaalis sa kanam <laughs> di dee sa kanam bu demee di la ko miil ak di la ko deux mille yow nga toog fi nga toog di ko ree te yow xam nga ni kii du nit ah, moo tax sëriñ ah, sëriñ bu xamul mm-hmm. non da xam li xew mm-hmm. léegi nag foofu yow sa yoon newu ci moom la rek yow sa yoon newu ci leneen <laughs> nit ni la kara téléphone nga xam kii bu baax mu lay nëbbatu yow nga réer ko mm-hmm. lan la lan la la mën a jaay mooy kan moom la rekk mm. <laughs> waaw walla walla bokk fii di tuutal sa bopp di wax waxi dof lan la yow la boo saraxee ba dee doo gis boo ñaanloo ba dee doo gis barki yenent bi doo gis <laughs> waaw moo tax léeg-léeg nit ñëw fëggala doo ko wuyu mm-hmm. non doo ko wuyu ndax de gisoo ci moom dëgg. Mhm. gisoo ci moom fulla mhm. gisoo ci moom fayda ndax nit ku am fulla am fayda du ndax boppam. kese <laughs> waaye nag sëriñ si ñoo amul fullay garde seet garde. Mhm. du ñépp nag. am na ñoo xam ni gëmunu dara. bëri na ci kay. ndax nit di la ñaan loo visa nga ñëw naan ko nan ngay def ba ma voyager. <laughs> kon de doo ko ñaanal visa. Hmm? am na si. <laughs> ma ne ko kooku de doo ko ñaanal visa moom. am na si pourtant même bu dee yàlla dogal na ni mën na la dimbale waaye xoolal ki la ñaanul visa. <laughs> ndax nag fii góor jokkul ci góor la góor jokk ci góor. ba yegg fa yàlla. ah waaye nag am sëriñ soo xam ni nag dañu lay xool par situation. boo yoree caabi oto jàpp nañ war nu la laaj cinquante mille loolu dof la. ndeysaan <laughs> ndeysaan man nit day ñëw ci man ma xam ne jeexalul dara bu ma ko waxee weexalam ndeysaan day ree sax waaye ci biir fay gi ndeysaan da la ko yéene lool ba loo ko wax mu ne la de sëñ bi indi naa kilifa ci yow mu gaaree oto boo xamante ni toit kàll ba mu ñëwee nga ni ko 37500 fi mu ne di ba mu génne dana ma est-ce que sëñ bi juumul ah non non sëriñ bi non xam nga loolu sëñ bi moom ay mbiram mu naa ma ne ko <laughs> dafa am ci lu mu tënku moom néew ci nga sëriñ bi sëriñ bi xam nga nag loo bëgg mu barkeel. Mhm. xamal noo cay demee. ci gàttal. <laughs> ndeysaan yàlla doon sutura macha allah allahumma min yàlla doon sutura Cheikh xam naa benn wala ñaar rek ñoo jeexal ndax fi ne xam naa ne ñi ñi toog di la xaar bëri na te mhm. waxtu yi wax dëgg yàlla tënk na la. Mhm. waaye nit ku seytaane jàpp dëgg. naka la ko sëñ Moussa mën a xàmmee ba dimbali. ndegam yaa ngi tiit ndegam foo tollu sa réegal a ngi ñàkki bañ normal ndegam yaa ngi xuppa derit ndegam yaa ngi gént gént yu jaxasoo seytaani laal na la ndegam yaa ngi yëg sa diggu gannaaw gi am lu ciy dox baa sa put gi am lu ciy taxaw seytaani laal na la nga xam ko ak nga ñàkk ko bañ a xam nu wax la ko ak nu ñàkk la ko bañ a wax waaye loole mën na amuk saafara bu nu jaawalee nag rab ak seytaani du benn mm-hmm. du mm-hmm. du benn dëgg Mm-hmm. macha allah du benn. li nga xamante ni mooy. garabu ngeer. Mm-hmm. waaw dañoo gis mag ñi bëggoon ko lool. Mm-hmm. farataaloon ko lool. bëriwaane itam ci. maanaam xeetu sàngat lu bari lu muy def. lan nga ñu ci mën a wax indil ci wàllu ngeer googu noonu tey jii. waaw ngeer la gi xam ni kenn jiitu ko ci àll bi. képp ku feebar nga xam bis ba mu feebar nga xam bis bi ngeer ñëwee ci àdduna bi boo ko ci fajee mu wér. <laughs> ngeer nit ñaa ngi naan soj rekk lay faj waaye demal ci yaasalaamun ngay laaj luy ngeer baa nga laaj ngeer kon mooy yaasalaamun mm-hmm. toru yàlla wu tedd wu màgg ngeer oto mu ne du këpp mm-hmm. <laughs> ngeer bu jigéen doon matu nga jël ay cari ngeer lalal ko ci mu tëdd gàcc du am gàcc du am ci gàttal <laughs> moom ngeer laa wax de mm-hmm. <laughs> tey ngeer dañu koy seen nii rek ah. waaye xamuñu ko dëgg-dëgg nag. dëgg-dëgg neex yàlla képp kuy suuroo ngeer seytaani du la mënal dara te boo ko dëkkee liggéey du la jàpp moom ngeer. foofu laa yem waxaguma la si dara. <laughs> lay lay la la. Mm-hmm. te da nga wax benn secret bu ko daaw da ngay gis oto yi daw ci àll bi yëpp da ngay gis ñu roof ko ci seen buntu oto yi wala ah, ci kanam oto yi ñun la ñu indaale seen ci ah, a yomb <laughs> am na yeneen <laughs> a nga ni foofa daal nga cay yem fi mu waaw na loolu fopp sax lay la examen yaa ngi ni di ñëw te gannaaw yow moom yaa féetewoo ak ndaw ñi mhm. yaa féetewoo ak élèves yi ah, am naa ci candidat yu baree bare lay ndeysaan ni suma xarit <laughs> tax ma ni woon dernière question bi moom ñoom laa koy jagleel moom macha allah. waaw am naa ci candidat yu bëree bare. Mm-hmm. wax dëgg yàlla. li ma ci am candidat nag dana tax du ma mën a maye ndax ñooñ dama leen encaissé <laughs> ah wax dëgg dafa neex ci xol. wallaay ndeysaan ah kon ñama ma encaissé daanu ñëw jël si lan ma jox si tubarkaal waaye man na <laughs> ah kuy dem sa moom mën naa ko maye. Mm-hmm. waaye léegi lu si manti doon. dama mm-hmm. encaissé ba pare moo tax du ma ci mën a. sori waaye li ma la si mën a wax sëriñ bi <laughs> examen yooyu. ñaan eh, boroom kër yi di musluloo seen njaboot yi ci seytaane léeg nit jublu dara man ko am dem ba yegg ci réer fekkati yow am na lu ko defloo am na it lu ko waral waaye yooyee mën na amuk saafara bu baax a baax sëriñ bi mm-hmm. am na am na examen yu bare ci mm-hmm. wàllu ENAM wàllu wàllu wàllu wàllu duwaat wàllu naa concours yu mm-hmm. bare yoo xam ni sëriñ bi wax dëgg yàlla dañ ciy am ay wóllëre certains bu ma ko fàttee duma gor saa su ne mhm. ñii ni teewlu amuñu seen fay ci àdduna mhm. lu ne lan koy def mhm. lu ne lan nii defal ci àdduna man ñaan gi rek dafa ëpp de ñaan gi ñaan gi rek dafa rëy ci ñun ñun rawatina nag lu ne lan nii defal ci àdduna lu ne lan defal ci àdduna wax naa la soxna see nekk ci Europe gis nga daanaka yàggul dara rek indi na fi machine yu dul jeex xoolal loolu ci àdduna te benn machine alal ju dul jeex lay jar ju bare lay jar loolu noonu système boobu nga xam ni yàlla doxal na ko suñu diggante yàlla dogal ko ci mbaaxam ci yërmandem mhm. amulu seen fay lu dul ñaanal leen yàlla dafa am ko ma envoyé benn commentaire ni ma jenn waay mhm. dafa ni Serigne Moustapha laa bëgg ba weer wi sama connexion yépp moom laa koy seetaan <laughs> loolu lan la ko sëñ Moustapha mën a fay caat lu ma ko mën a faye <laughs> lu dul ñaanal leen yàlla mhm. gudda fan ñaanal leen yàlla wér mhm. ñaanal leen yàlla sutura mhm. ñaanal leen yàlla musal leen wallahi lii laa leen ñaanal waaye it di sàkkuwaat ci ñoom ñaan ndax soxla nanu ko ndax lii niy def kat am na ñu mu neexul de dëgg la ci sëriñ ak ko wadul sëriñ hmm. am na ñu mu neexoon. ah dëgg yàlla fi may daaneelee nag mooy <coughs> réew mi yàggul dara gis naa fi ay peele. <coughs> <laughs> loolu beneen affaire la. <laughs> beneen affaire la kay peele rek. yàlla na yàlla doy sutura ndeysaan xam na ko ndeysaan. ah ah yàlla xam na ko ndeysaan. Oh. Ah, ah, ah, yàlla yàlla dolli jàmm. noo mën bëgguma kenn kenn am lu la naqari. yàlla xam na ko xam na ko. moo tax ma daaneele ko loolu. xam naa daan ci waxtaan naa du gën a yàlla. incha allah rabbi mm-hmm. jërëjëf Cheikh Moustapha ci waxtaan bu am solo bi macha allah ci xam-xam bi waaye itam ci ci ci ci ci ci ci ci exprime exprimer bi nga xam ne yaa ngi ko exprimer woo ndax tey ji bëri na bëri na macha allah ñoo xamante ne tey ji xam nañ li nga xam mm-hmm. mais ñu ko exprimer mënuñu koo waxtaane ba mm-hmm. jëriñ askan wi donc kon bu yàlla dogalee xam-xam bi ne fi waaye nga am facilité. mën a def waxtaan ba nit ñi mën koo teewlu. Mhm. di ko dégg di ko bëggee mhm. ba di la topp. Mhm. nga xamante ni li lay topp ci doomu aadama di la enregistré. seen téléphone yi nga xam ne ñoom dañuy bëgg sax fu ñu wéetee wala fu ñu bëggee concentré wu. dugal seen kas yi seen nopp di déglu sëñ Moustapha. yàlla li ngay faral di wax ni dug njàmbaar waaye dimbalu suñu borom. subhanahu wa taala wallaahi dëgg la. waaye nag dimbal gi itam daa fekk ne que que ñuy dimbali bëgg ñu dimbali ko moom ndax mu bën a dimbali waate moo tax mu am kon maa ngi ñaan sama borom doole surtout suñu bokk Gambie yi ne Angleterre. biig rek sëñ Moustapha. Angleterre biig am na ko ma woo. kenn xamul nu li ngay wax li ngay ko. xamoo yàlla xam na am na ci ku woo ko xam ne day wax ba jooy. waaw yàlla man ak suma borom kër a ngi nii. dañuy lay nee ñoom ah. dañ doon woote hmm. ci sa numéro bi mënuñu hmm. laa jot. ñu daal ci service commercial bu Salam Vision bi da woote fa. Hmm. di ma laaj man leen numéro boobu ngeen woote mun leen ko jot ñu naa man leen numéro boobu mooy numéro liggéeyukaay. lu mën a xew mooy su ngeen ko ca wàccalee vocal. dina ko gi Yacine ñu koy wax ak man ci yow mhm. ne ma xanaa yow man leen man ci assistant laa bokk mhm. nangu ma leen mhm. ci assistant laa bokk fi mu toll nii parce que xam naa ne su ma ne woon maay def ak yow émission yi lu ci damay lottu ci loolu fi mu toll nii wax dëgg yàlla moo tax ma jaarale waat leen rek kenn jaar ci liggéey bi kon li ngay wax ni fi ni ñi nga xamante ni Gambien yi saraxule yi France naabe yi dëkk fii ci sowu jant bii nii nii dañoo bëri li ñuy déglu ci sëñ Moustapha wala li ñuy comprendre ci sëñ Moustapha mhm. wala fi leen sëñ Moustapha di yóbbu ci waxtaan mhm. lañ mënta am feneen moo tax ñu topp sëriñ Moustapha tabaate ñëwagul wallaay dëgg la sëriñ bi wallaay xam naa ci dara parce que dama koy dundal wax lu bare bare loo xamante ni macha allah moo tax ñu ngi leen di ñu ngi ñaanal mhm. di ñaanal ñi ni teewlu fii ci réew mi lool waaye di ñaanal ñëpp ñi nga xam ni Italie Espagne Angleterre Suède mhm. Suisse fu ne ci àdduna fu ne rek ci àdduna mhm. pour nu bañ a jum Belgique waaw waaw gi wax dëgg yàlla sëriñ bi it am na am na ñoo tedd ñu fa ne ci sama njabootu bopp bopp goo xam ni lu nu dul defal amut. ndeysaan waaw ndeysaan lu nu dul defal amut. ndeysaan loolu dafa rëy ci ñun. Mm-hmm. dafa rëy ci ñun hmm. yàlla na yàlla defal ñëpp jàmm yàlla na yàlla defal ñëpp wér yàlla yàlla defal ñëpp sutura ci barke Seydina Muhammad di ñaanali télé bi ndax hmm. soxla na ñaan hmm, yàlla def fi tawféex yàlla def fi jàmm yàlla def fi sutura lépp luy ay yàlla na ko fi yàlla teggi ci barki Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam lii la ñuy ñaan di wax asalaamaaleykum wa rahmatullah Cheikh Talla maaleykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakaatu Cheikh Moustapha xanaa duñ ci teg dara daal lu dul laal fi mu ne lii mbooleem loo xam ne bëgg-bëgg la ak mébét ak yéene. Mm-hmm. ci doomu aadama muy ci lu baax ci lu yëw yal na yàlla sama borom jàppandalal lii ñëpp lépp ci daraje Seydina Muhammad julli gi ñu dëgmal itam hmm. lépp loo xamante suñu borom doomu aadama bi bëgg na hmm. ko ngir jaamoo ko yàlla tërale ko aw ñoñam hmm. yal na yàlla jàppandalal ko lépp ci daraje Seydina Muhammad sant gërëm jox daje ñëpp insha allahu rabbi beneen jotaay ak suñu jotaayu xam-xam bi nga xam ne moom la ñu defal fii ci biir sa fi nga xamante ni mooy Amsa TV la télé solution di leen wax ni rek solution a a daw ci suufu euh, vidéo bi ah, bu ngeen fa wootee di ngeen jot sëñ Moustapha bu ngeen mm-hmm. mënta jot sëñ Moustapha di ngeen jot assistant yi wala mm-hmm. assistante yi mm-hmm. bàyyi leen fa seen i lu ngi seen soxla insha allah rabbi sëñ bi dana ko jot te dana leen tontu ci kàttanu yàlla en plus adresse yii di dawit kese la nu amul yeneen mooy ak mooy ak 900 bi di orange bi ak 700 bi comme loolu dëgg yàlla mm-hmm. ndax wax dëgg yàlla ni ki yaakaar bu fa yaakaaram tasee ci moom baabu taseel nit kuy tasug yaakaar mm-hmm. musiba am yàlla na yàlla dolli jàmm ci barke Seydina Muhammad la alayhi wa loolu moom neex naa dégg te na ah, orange bi mooy 700 bi mm-hmm. expresso bi mooy 500 bi kirène bi mooy 900 bi amul beneen jërëjëf sëñ bi